Mm-hmm. léegi ma jël leen après defar leen sagalu ma leen def ma leen dara moom. Mm-hmm. léegi ma wóor ma dugg gis que ni taaru jooy si. léegi ma wóor ma dugg ne ko li taaru lii dama ko doon siyaare rek ñu bëri moom ndax ah man de li moom du samay mbir. Mm-hmm. mais dinaa la boolee boo nga xamante ne nii dina la liggéey. di ma booleeg imaamu Touba bi su ma joxee numéro bi ma jël numéro bi avant foofu laa yeewoo. beneen bi ci des damay jënd lu bari ci tey bi di muuru daal. Mhm. te su ma génnee di muuru la ci am damay jooy ba sonn te du ma xaw lan la ma yeewu rek. Mhm. su ma génn gi après dootuma xamante lan la. Mhm. jërëjëf. shukran jërëjëf wa ala kulli xaal dégg nañu laaj bi. incha allah dinañ ci indi ay leer xaj Abdoulaye nee na dafa gént dem ci armeelu Touba yi. nee na di ziara moo am ñaari xale yu néew yu génn waaye nee na ragalu leen. ni mu waxee mel ne leen jël na leen. Euh, yor leen nii waaye ragaloo nee na ci ginnaaw loolu gis na Cheikh Salih Mbacke ci biir. man mm-hmm. da ne ko li ngay soxla yoruma ko waaye dinaa la boole ko ko yor. Mm-hmm. Euh, xaj Abdullah gis nga ru'yatul xubur fil xulmi euh, gis nga gis bàmmeel ay bàmmeel ci gént dafa bokkul ak dara ak gis nitu yàlla ci gént wala raxala ila jiwaari rabbihi mundu qadimi zaman donte sax ko génn na àdduna waaye dafa bokkul dara teg telewul ak euh, bàmmeel yoo xam ni gisoo seeni borom mm-hmm. xamuloo leen bàmmeel yi rek nga gis dafa wuute gis nga moo tax mbir yi di ko laaj dafa am solo euh, ku génn àdduna te tey nitu yàlla te yàlla baaxe ko gis ko yiw la euh, gis ay bàmmeeli kese nag te gisoo ci benn nit lu dul rek niñ leen tërale nga gis ak béréb bi kooku baaxul ay xat-xat la waaye wax ak koo xam ne kii it nitu yàlla la ku làqu eh, ndax nitu yàlla yi dañuy làqu mhm. yiw bu bari la xéewal la surtout nag gën naa nekkati xéewal bi mu jokkalanteeg moom ay kàddu eh, deuxième bi xaña dara mu ne defe naa eh, gis na bari na lu muy génti di tënj mhm. maanaam ne kuy tënj ku borom këram dee mu génn àdduna mu di ko tënj nee waaye bari na it lu muy jooy ci biir tënj bi gis nga tënj ci gént ak jooy ñaari mbir la yoo xam ne bu ñu dajoo ci dajaloo ci benn guddi rek jàppal ni mbir la tënj bi soo baat la xat-xat la ay jafe-jafe la yu tar ci sa dund jooy yi nag mooy ginnaaw bu loolu weesoo yàlla mi ngi ñëw ci mbaaxam ak yiw bu bari ndax albukaa u rahmatun albukaau faraxun wa sururun fi xayaatil insaan jooyu guddi mbégte la kon boog ginnaaw bu loolu weesoo mbégte ngi ñëw muy ñaari mbir yu daje ci benn guddi bii day randal njàqare bii mm-hmm. mbégte di dugg si eh, na ci bàyyi xel eh, ñu jël ki ci lim yi sa ñëw a wa rahmatullah salaamaaleykum waaw xam naa dina àndaat ak ñun xam ne ligne bi moo ko xawari ci tuuti dina àndaat ak ñun ci kanam tuuti incha allah waaye dañ koy wax rek Euh, comme que yow la na génnee lu weex mhm. lu weex sopp nañ ci bu dee tissu ñaari mètre ñett ñeent xadaroy seta atal insaan euh, sa kamte laayil kàttan nga def ko liwa ci laayil karam mu nekk sarax nga génne ko daf ci am solo waaye nag euh, ñaari mbir dañuy tase ci benn guddi yenn saay te bokk ñu jëmukaay nañ ci bàyyi xel bu baax loolu day fay farataal di am ci wàllu gént waaye ñu jël ki ci ligne bi te ñëw soxna sa bismillah dafa amoon ñaari gént yi ma bëggoon ñoom firil ma bismillah waaw nag maa ngi xoolee Angleterre suma mhm. wolof njiit nag du dëgër noonu noonu dëgg ma xarit bu jigéen léegi ñu ma waxtaanee kooku mu am suma boñ bi ci kaw mu yanqa léegi bu mu yanqee ma xam ne boñ bi daal dafa bëgg a rot ma toogee foofu di wax ak moom su ma siiñee daal dina gis suma jaalu te naaru loolu mhm. laa jógee ma dem ci biir néeg bi bi ma demee si biir néeg bi pour seetu pour seet suma bëñ bi léegi ma gis ne am naa ñaari jaal ci suma bëñ yi daal ma ne ah lii de garaawul léegi noonu noonu ni ma seetee suma bëñ yi rek yi nekk ci kaw yëpp rot ba yi mag yi nekk ci biir tamit bi rotandoor mhm. waaye ni mu rotee dafa bëri ba nga xam ne bi ma jógee ci suba sax dama mujjee laal suma bëñ yi pour seet ndax suma bëñ yi daal def na fa. Mhm. bëñ yi rot dafa bëri. waaw ñu nekk ci kaw daal ci suma euh, ndeyjoor la. Mm-hmm. ñu ko dee wax waaw suma ndeyjoor. Mm-hmm. ñu ni moo rot. beneen génta bi ma amoon mooy sama euh, ànd ak benn tubaab bu jigéen. Mm-hmm. ak ñaari xale yu góor. léegi ñuy dox di dox ba ci yàgga ñu gis daal géej liñ gisee géej bi léegi ndox bi di ñëw di ndox bi ñëwee man noonu laa dawee pour ndox bi laal suma tànke léegi bi ndox bi laalee suma tànke yi mu am benn waay. boo xamante ne nii moom daal dafa am xam-xam. Mhm. léegi mu ne ma eh yow xanaa xam loo ne euh, jigéen bu sëy warta nangu ndox bi laal tànkaam bi. Mhm. léegi bi mu waxee noonu may expliqué tubaab bu jigéen bi li wax ne tubaab bi dénkut àngale daal ah olof baalal ma. léegi mu a ma léegi ni ñoo def mooy yow foog ñu wat sa kawar bi ba mu jeex mu ndel la daal mhm. ma ne ko ah man de bariwuma kawar ba ngaa wat suma kawar bi ma ne ko yow sa doom jigéen bi taxaw kawaram bi duñ gàttee sa sax moom ëpp kawar mu mhm. a ma yow daal noonu rek lañ la war a def foog ñu wat sa kawar bi ba mu jeex daal ndel la mhm. ma ne ko aha mu a ma waaw léegi noonu laa jógee daal xaw ma nag ma ne xaaral ma xool leen ngeen firil ma suma jënka bi daal wa ala kulli xaal dinañ ci ñëw léegi soxna si incha allah xaya bi laa nee na dafa gént euh, génn comme ni mu ko waxee léegi. Mhm. ànd ak xaritam waaye nee na dafa li ko gën a jaaxal ci gént gi mooy dafa gis bëñam mhm. euh, yu ci bëri deñ ba mu jaaxale sax ci ci gént gi bu mu muy làmb ndax bëñam dafa deñ mhm. euh, gis nga bëñ bu deñ allahu alam bu bare ak benn la kilaaxuma ala xaddi sawa benn la amul wuute amul différence bu bare benn bi bañ bu dañ la ñu wax bañ bu dañ nag xaj abdullah mooy nit ku wàññeeku allahu alam fi ay makaanin yakunu yàlla moo xam ci ban bërëb lay doon ak fan lay jóge ak fu muy génn kooku dañ koy bàyyi ci loxo rabbu samawati wal ard mhm. waaye daal bañ bu dañ euh, nit ku wàññeeku la amaa nag bokkul ak bëñ bu yànq di yëngatu te kooku day tegtale xaj abdullah nit ku tëdd feebar feebar bu tar bu ko sonal mooy bëñ bu yànq te dañul amaa nag bëñ boo xam ne bi dafa am jaal luñ koy waxee eh, jaal moom ci gént mooy bëñ yoo xam ne fa fu mu war a nekk nekkatu fa mhm. ñu di ko tuddee jaal jaal nag moom day tegtale xaj abdullah ci gént eh, alal joo xam ne ji saa yi ko borom jubee rek dafay teg am jafe-jafe saa yi ko jógee pour teg ci loxo day am xat-xat day am jafe-jafe ci jotin wi ak amin wi te it wa ala kulli xaalin dana dem yenn saay moom jaal dina dem ba xaj abdullah loo am ni muy duggee sa loxo noonu lay deme kon mooy nit ku gis bëñam yi fi ñu war a nekk mu am espace bañ nekk fa mm-hmm. ñu bàyyi xel loolu nee na deuxième it gis na benn xaritam mu àndaloon ak benn tubaab ñu dem ba ci yoon wi mu gis ndox mel ni ku ciy bëgg dugal ay tànkam mm-hmm. ñu tere ko ko ne jigéen du def ay tànkam ci biir ndox ak tubaab bi mu ci gis xam naa yooyu moo ko gën a jaaxal euh, tubaab beeg ndox meek yépp yiw la li baaxul daal mooy boppi neen ak yaramu neen bi ak yeneen yi ci topp ak yooyu yooyu yëpp bu dee yooyu am na ci lu gën waaye almaa u rahmatun euh, ndox yërmande la nañ ci bàyyi xel waaye nag an diggante jaal ak bëñ bu dañ xayam de la noonu la tëddee na ci bàyyi xel euh, kon na def saraxu dugub donte kilo la baax na donte ñaari kilo la baax na mu génne ko sarax li wa ci laayil ñu jël ko ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa mm-hmm. rahmatullah salaamaaleykum waaw xam naa ne incha allah bu dinañu jotaat àndaat ak ñun xëy Abdullah mm-hmm. ñu ñëw ci sa laaj bi bismillah mm-hmm. ñu dalal kaddu gi rek mooy kii gént mm-hmm. lu safaanu des fois mu baax waaw xam nga xëy Abdullah gis nga waaw defe naa ni dañuy bàyyi xel ci ñaari safaanoo yi euh, lu baax ak lu baaxul ci fii laylatin waaxidatin ci benn guddi Euh, al asbaab wal adillaat incha allah nañ ci ñëw léegi may ma ma jël ki ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum. sëñ bi naa def. soxna sa bisimilah. jàmm rek man damaa amoon gént bu ma gént. Mhm. damaa gént fan daal ëmb. Mhm. waaw te fan bi ma amee doom ak léegi yàggul. Mhm. waaw beneen gént bi tamit. damay gént daal di gis ay mbunaat yu ndaw. waaw. jërëjëf incha allah dañ ci ñëw léegi incha allah euh, shukran xajaamte laa ñu ñëw ci ñi gént euh, ñaari mbir yu wuute ci benn guddi mm-hmm. te bi baax bi baaxul mm-hmm. gis nga nit ki sax man na gént ba ñett ba ñeent loolu dañ koy tuddee adxaasu axlaam mooy gént yu tegaloo te bari mm-hmm. dafa bokkul ak dara ak ruya saadiqa fil xolmi bokkul ak dara ak ilham ñetti mbir a ngi yoo xam ne bokkuñu fu ñu jëm waaye li ma bëgg a mooy euh, xaaj Abdullah ni yàlla di defee guddi ak bëccëg naqar ak bànneex noonu la nit diggante lu neex ak lu naqari mhm. lépp fii laylatin fii laylatin ci benn guddi waaye nag yàlla yenn saay day indi misaal misaal bi mooy xam nga alquran dañuy wax naan inna maal usri yusran mhm. ginnaaw jafe-jafe yomb yomb yenn saay yàlla wan la jafe-jafe dem ci biir gént gi wan la it ne ala kulli xaal Euh, wara euh, wara al usri mhm. fiihi yusru ginnaaw jafe-jafe bi yomb yomb mi ngi ñëw yomb yomb yi ñaar yooyu nag la yàlla di dajale ci benn guddi woon ko nit ki lii de xat-xat lii di jafe yomb yomb mu bëgg la wax ni ci biir gént gi bu xat-xat bi ràndoo yomb yomb bi day ñëw walla bu yomb yomb bi jeexee mhm. xat-xat day ñëw xam nga mag ñu baax ñi xaj Abdallah dañ daan def bu ñu bari lee lool ba bari la lool ba alal ji bari lool xéewal gi bari lool ñu tiit mm-hmm. soo leen laajee lu tax nga tiit xanaa doo kontaan ñu ne la déedéet ndax dama war a tiit ndax damay xam ni euh, bànneex bi ak am-am bi bu weesoo rek jafe-jafe muy ñëw ñu gisee ci ne bu jafe-jafe tare ba tar dañuy bëgg boo leen waxee ñu ne leen léegi yàlla indi xewal ndax na inna maal yu yusran ginnaaw jafe-jafe bu randoo rek yomb-yomb da ci tegu mhm. ñu bàyyi xel loolu bu baax euh, ñu jël ki ci ligne bi te asalaamaaleykum aleykum salaam euh, soxna si bisimilah aleykum salaam bisimilah euh, man ne dama am gént moo la laajte mhm. dafa am benn guddi ma gént taxaw sama bunt kër mhm. léegi ma yor benn paan bi ma yoree paan bi léegi am benn saabu ma seen benn saabu ñu teg ko si ligne bi. si mhm. mbedd mi. Mhm. am meer ma jàkkaarloo ma ne ko eh, sa saabu bi na de. Mhm. léegi muy gestu. ma daal di dem jël saabu bi for ko. dugal ko sama paan bi. fi may xoolaat dañu saa beneen saabu. ma dem for ko dugal ko sama pa paan bi. may dox ba muy juróom-ñaari yoon. ma for saabu bi dugal yëpp sama paan bi muy juróom-ñaari saabu. am léegi ku ma ni. benn meer daal ni ma. yow foo jëlee saabu taw di jënd benn saabu ma daan dawaat jël saabu dugal ko sama bande mu mm-hmm. juróom-ñaari saabu mm-hmm. fi may gëstoo na am ay nit yu taxaw nii mm-hmm. waaw benn bi damaa am sama koo xam ne dafa ñëwoon ci kër gi ma ko fi daal sama si kër la woon ma tëdd ba guddi ma gis ko mu ñëw gi mel ni ku delluwaat sa kër jëkkër ni ma léegi damaa bëgg nga baleel ma néeg bi tegal ma matelas bi ma tëdd si mu ngi toog si buntu néeg doomam foo xam doomam mu fi bàyyi woon la bu góor Mm-hmm. fi la toog si bunt bi nii ma dugg si biir néeg di ko bale. ma mm-hmm. koy bale bale bu bari laa génne di bale nii di bale nii si yàgg. Mm-hmm. sama jëkkër mi toog si bunt bi ma jékki-jékki rek gis lu mel ni genre bar. bu génne si benn pax nii ma daal di eh daal di woo sama jëkkër bi ko xoolal lii. fekk boobu buub naa mbalit mi doon si kii bi daal di génn mun ma lan la ma ne ko bu jékki rek bar bi daal di génn. ma daal di tëb rek daal di génn. dugg si biir bi mun ma lan la ma ne ko kii bi dafa am lu génn fii. waaye yow matelas bi nga wax xajul fii léegi man am foo xam ne sama néeg bu furqale nii. Mm-hmm. sama ginnaaw la ma daal fay teg matelas bi. bu mm-hmm. ko kaay tëdd fii. Mm-hmm. léegi ak encore tamit damay gént yenn saa yi nekk foo dëkk boo xam ne fa laa jóge woon. may yéeg su montagne. di wàcc nii di wàcc wàcc day xat su may yéeg nii day xat ba pare. et day nekk montagne bu kawe. man du ma mën a yéeg mais tamit bu ma yéegee si géej gi laay wàcc. ma wàccee si géej gi laay xuus yenn saa ña ma nekk ndooloon bopp. may nekk ak ñoom yenn saa yi nekk foofu ay saaru lu mhm. jërëjëf jërëjëf sukran ala kulli xaal bi bayaan zalika incha allahu eh, xayab laa na. Mhm. Eh, dañ ciy jot a defe naa ni eh, nee na bari na lu muy gént di ëmb. Mhm. ëmb guddi nag moom xul naa zalika miraaran wa takraar xaaj Abdullah ëmb guddi naqar la. baaxul amaa nag bi ci des xaaj la nee na gént na benn ku ku jëkkëram jëloon mm-hmm. nee na mu jékki-jékki mel ku dellu siwaat ci kër gi nekkaat ci kër gi mm-hmm. mel ni ku fi nekkaat mm-hmm. euh, loolu nag euh, tekkiwul ni kooku fi nekkoon moo fi nekkaat waaye day teg si nag xaaj Abdallah borom këram am na àndandoo buy farataal di jël jëmm jàmbur di ñëw di teew ci kër gi nañ ci bàyyi xel amaa nag euh, beneen bi ñetteel bi nee dafay farataal lool di gis euh, boppam mel ni ku yéeg fu kawe foo xam ne fii yéeg bi day jafe mhm. wàcc bi day xaw a jafe waaye neen suy wàcc day wàcc foo xam ne fii géej lay doon gis nga yéeg rek moo gën fuuf wàcc qul naa zalika miraaran wa yéeg jëm fu kawe moo gën wàcc jëm si suuf wàcc it foo xam ne fii dafa am ndox yiw bu bari la waaye nag dafa am loo xam ne lu jar a bàyyi xel la alhamdulilah. Mm-hmm. gis nga saabu mm, lu mel ni ki saabu. Mm-hmm. fóot ci guddi baaxul gént gi saabu baaxul gént fóot baaxul su la fekkoon ci ay tar-tar day gën di yokk su la fekkee ci ay lëj-lëj tarit day gën di yokk waaye du wàññeeku mooy saabu ak gént di fóot ak yu mel noonu di weer ay yére yooyu yëpp. Euh, ci gént baaxul waaye dañuy sopp borom su ko gisee muy farataal di génnee sarax mhm. lu mën a fànk loolu xañ Abdoulaye ci am solo lool waaye ñu jëlaat ki ci liñ bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah salaam jërëjëf waaw damaa amoon benn gént boo xam ne mhm. damaa géntoon ma mel ne man nag nekk ma fi mhm. waaw ma gént mel na ku dem Sénégal léegi bi may dem maanaam bi mel ne bi ma jógee suñu kër mel dafa am lu may topp. Mm-hmm. bi may topp ba si yàgg ma daal di dugg kër. Mm-hmm. bi ma duggee suñu kër ma daal di gis sama yaay di togg laax. Mm-hmm. te fi mu koy togg mi benn lu mel ne wàññi. léegi bi muy togg laax bi léegi ma daal di laaj sama benn mag. bi ma ko laajee sama yaay daal di ñëw daal di may sama bi dañ ci biir mi nelaw. waaye moom ñetti fan la ñuy muy nelaw. dañoo foogoon ni sax dafa dee. Mhm. léegi ma daal ne ko ah léegi ma daal di xool gis lu mel ne ay weñ lu mel ne ay weñ yu naaw daal. Mhm. ma mel ne lu ko gis ba si yàlla tuuti ma gis sama benn doom bu ndaw. Mhm. sama doom bi nag dafa nekk sama yaay. sama yaay la nekk léegi ma daal xool daal dem ci néeg bi nga xamante ne sama yaay dafa ma ne sama mag bi mi ngi fa tëdd. ma daal dem bi ma demee ma ubbi buntu bi. mu ma kaay mu xool ma ndax ñun nag ma maag moom dañoo xawoon a meroo fan yi mhm. dañoo meroo léegi ma xoolee noonu mu daal ne ma kaay tëdd fii ma tëdd fii mhm. léegi man tamit ma xool ko daal daal di bëlbati ko mhm. mu bëlbati ko daal di génn léegi bi ma génnee suñu kër tamit ma gis kër gi ñu jàkkaarloo ku xamante ni mi ngi toog ku am ku am yaram la mi ngi toog di ñu jàkkaarloo ak ñun di ñu xool waaw loolu nag ci laa yeewoo jërëjëf jërëjëf incha allah dinañ ci indi ay leeral xëy na daal nee na gént na lu ci ëpp daal te jóge bitim réew mel ni ku nekk Sénégal. Mhm. nee na bu muy doxee dafa mel dafa am leneen lu koy topp ci ginnaawam. gis nga jege béréb ñëw béréb. Mhm. baax na waaye bi ci condition condition bi mooy charte bi mooy na fekk fi ngay wàcc si mu nekk béréb boo xam ne béréb bu daayiful xaal. daifal xaal mooy béréb bu néew doole boo xam ne bi taxu ko omble noonu mhm. day jur yëw ci nit day jur xeewal yadullu ala fatxin wa yusrin wa najaax fi xayaati l insan euh, beneen bi ci tegu nee na euh, gis na it xaj Abdallah ci béréb kër gi mu nekk mhm. mu mel ni dafa am ñu mu fay nekkal ak yu mel noonu comme ni mu ko waxee xam naa ne ñàkkul luñ ci xaw a euh, lënt tuuti waaye li am solo rek mooy na bàyyi xel ne daal kër gi ak ñam fekkee ak ñëpp yiw la koy jural ah, du lu nag xaaj Abdullah na ci bàyyi xel ndax eh, gént gi bonul bismillah tafaddal mhm. jërëjëf xanaa dañ lay delluwaat kaddu gu ci leeral boobu mhm. waaw leeral bi xaaj mhm. Abdullah mooy lu baax daal ak lu safaan boo génte ci biir benn guddi dafay tegtale toujours li ci ëpp que seeni diggante ñoom ñaar bu ñu ñëw duñu sorante lu jar a bàyyi xel la lu baax ak lu safaanoo boo leen ci benn guddi bu ñuy ñëw duñu sorante lii day ñëw tuuti boobu jamono ci ginnaaw loolu la ci des ñëwaat euh, dañuy wax ne nag lu baax fu mu fekk lu bon moo koy ëpp doole loolu it lu jar a bàyyi xel la lu baax bu jiitoo baax na su mujjee ginnaaw baax na su jiitoo moo ëpp doole su mujjee ginnaaw bu ñëwee dafay jëlale Euh, safaan muy lu am solo lool lool lool lu jar a bàyyi xel euh, xañ Abdoulaye bisimilah. jërëjëf oustaz ki nag nee na dafa gént maam borom Touba di maamam. Mhm. dafa gént mu fekk ci néeg bi nga xam ne ci lay jaamoo yàlla. Mhm. nee na mu gént ko déy ko ne ko toogal fii. mbir mi mhm. jaaxal ko trop muy laaj loolee lan lay tekki. waaw borom chakartu isqasani bi xidmatin maa sini za xidmatin fi alani lahu fakk walami lahu xitaabi daaya bi ma yuhib madiya wa zaada li aqradiya zaadan li daaril karam kooku moom la masila lahu wala yura baadu misluhu kon ñu xam ni gis ko ruyatuhu fatxun ruyatuhu xayrun ruyatuhu ijabatun min kulli daawa gis ko yiw la aaju gu faju la ubbeeku la wa xatta walaw kunta fi diqin shadid su la fekkoon ci xat-xat yi tar jàppal ne bi awnillahi wa bi rahmatihi yàlla ci yërmandeem ak euh, mbaaxam dina la ko teggil muy gis cheikhul xadim euh, al aarif billahi yàlla nañu ko yàlla defal bi jaahi sayyidul wujud tafaddal jërëjëf mhm. oustaz kii nag nee na dafa gént ñaari xale ci kaw asamaan si mu mel ni dañu nekk ci weer bi mhm. nee na xale yi tiim benn tableau di bind mhm. nee na ci noonu yi ci biir gént gi rek mu wax benn sage-femme ne ko xoolal xale yi waaye moom gis na ko sage-femme bi gisu ko muy laaj loolee lan lay tekki ci wàllu kenn. waaw shukran yaa Cheikh Abdallah kooku ci wàllu liggéey wala bu fekkoon bu fekkoon huwa yaamal fil xukumati ci gouvernement liggéey dina ci am yokkute waxata bu yore liggéey boppam sax dina ci gis yokkute bu rëy ndax gis ay xale ci kaw nekkul ci suuf euh, taqaddumun fi xayaatihi yokkute bu rëy la koy jural ci liggéeyam ci dundam ci ay yittey boppam euh, loolu moom lu am solo la. waaye xaj Abdallah defe naa ni dañuy ànd ak euh, waaride tuuti. Mhm. dem ñëwaat door a dellu si ak askan wi ci yi ñu bëgg a soxla ak yi ñuy laaj incha allah ñu indi leen ci ay leeral bismillah.